Sonko. naam. dégg naa Amadou Ba Guinée la. ñun suñu yoon newu ci. man de sama yoon ci. su lu sa <laughs> seen la. seen yoon nekkul ca loola. <laughs> Macky. naam. Amadou Ba Guinée la. lan. ah loolu de yëguma ko. xam nga ko bu baax. man xamuma ko. mosu gis ku mbokkal ndey wala ku mbokkal baay. mosuma ko gis. wax ngeen ko jox réew mi Guinée. décision bi def nañ ko. mais xam nga ne Sonko ak yow deuxième tour. bu baax. salaamaaleykum. aleykum salaam. saa lu xew heure bi. su ma teewaay fii nag c'est parce que dama am lu ma metti. yow mos am lu la neex ci politique loolu ma metti ma yàgg ko yóoxu yàgg ci wax. ba léegi dara. xanaa Amadou Ba ngay jàppale. déedéet. kon Khalifa Sall. déedéet. foo jëm. tànk day tàllalu mbaamu banku. su tànk bi demee nag. <laughs> da nga bokk si kandaay. oui. est-ce que mën nga gagné Bassirou may Faye. non. kon toppal si ginnaaw Sonko. mu jeex takk élection bi moom rëcc na la. dañu ciy bokk. non doo bokk. dañu ciy bokk. nooy def ba bokk léegi. waxtaane ko. waxtaan jeex na. waxu leen dëgg. eh Bougane man ak Sonko ngay waxal. en tout cas man Bougane waxuma loolu. eh. yàlla tax nga bàyyi Macky sax. Sénégalais yu suur nañu ko. waa na sa copain Macky. golo gi. Macky ngay golo gi. bu rëy anam fu mu nekk golo gi mu ngi ci biir tool bi lu mag di def si tool bi golo gaa ngi yàq tool bi man de noppi naa ñu seetaan Mollah Morgun te tàggatoo duma waxaat papaam mi ngi tudd Pape Alassane Ba mooy baayam Aïssatou Bili Ba papaam moo tudd Pape Alassane Ba ñu jóge ci pitta ñooñu pitta la ñu jóge pitta du piita pitta yaayam di Mariama Ba jóge ca pitta ñu am doom bu tudd Sadibou Ba jóge ca pitta Mamadou wu Ba joge ca pitta Bili Ba Aysata Bili Ba jóge ca pitta Omar Ba jóge ca pitta ñu daggal leen billet ñu daw jóge ca pitta ñëw ca Thiès jamono jooju ki nga xam ne moom mooy euh, amadu Bay euh, Bayal Bayal la tudd Bayal du wuri damay gis gaa yi wuri ba non Amadou Bayal ba la tudd du wuri ba wax dëgg rek te yàlla Amadou Bayal ba la tudd la dëkk la tudd juddoo ñaari tali koñ bagaar Cees googu la xamee Aysatu bili ba takku ko mu jóge ñoo jóge ca Pitta yaayam di Mariama Ba baayam di euh, Papa Alassane Ba nay leer